aleykum carna bookum dugg na attaqué na Ousmane Sonko yàkk ko kàddu yoo xam ne weñ wu ci daal fa ngay dee info yéen a kaay ñu ko xamal ñetti weer biñ jëlee nguur gi ak léegi waaye na carna bookum daal fa ñaawlu doxalinu Ousmane Sonko yéen a kaay bi fa njëkk a xam le ne temps biñ leen mayoon Sonko ak Jomaay ngir ñu organiser wu fi mu toll ni jeex na comportement premier ministre bi nag Ousmane Sonko fa koo ñaawlu ne Sonko daal respecté wut institution réew mi te respecté wut tamit sénégalais yi waaye faa koy xamal leen moom Ousmane Sonko bés bu defee assemblée nationale na ko wóor na bés dootu nekkati premier ministre bu Sénégal te moom Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar mu wax action gouvernement bi mu bàyyi ko fi moom di def ay action yoo xam ne ay dem grand théâtre di fa concurrencer Wally ak yeneen wëykat yi ci maa leen ëpp mbooloo di def ay show ca Colobane loolu xaaruñ ko ci moom Bassirou Diomaye Faye nag président fa war a ne mooy président bu Sénégal moom lañ fal kenn falut Ousmane Sonko ko mënut jël ndam mën a jàkkaarloo ak nguur gi ndax ab réew nag fa war a soxla ay opposant contre pouvoir ñu ne dee tawaay Cerno Bokkum nee na ñi nga xam ne fa tabax ñu ne ci pegg géej gi Jomaay ak di ko aaye faa leen di wax ñoom ñaar na leen nañ lijjanti seen xarit boobu nga xam ne moom moom hôtel bi ñuy wax Azalaay yow hôtel bi sept mille naka lañ ko mën a tabaxee ci foofu yëf naka la mën a demee faw ñu lijjanti ko le verdict yéen kaay mel ni am mu ñëw déglu leen di leen wax dëgg taxaw ngir jubbanti Sénégal tappale yi moom ci lii la nekk yow ngay wax lan l'observateur na ko en daal téeméeri fan daal lañ amagum mook jomaay ci bopp réew mi waaye daal li ñu seetlu daal mooy premier ministre bi di Ousmane Sonko fa muur président de la maanaam Sonko moo gën a fës docteur Arouna Coumba Ndoffène Diouf mel ni ku leen di tontu tamit na leen gis ngeen jomaay ak Sonko mii yoon wu ñu la ñu ngi jubbanti réewum Sénégal la woon na sañ-sañ gis ngeen jomaay ak sonko mii buñ seetaane Macky Sall jàppuñ ko andi ko ci réew mi atte ko na leen ne fa ñuy war askan wi ndax Macky li def ci réew mi fa jéggi dayo kenn waru ko bàyyi noonu bor bi mu bàyyee réew mi moom kenn xam leen koy fay bam jeex vox populi na ko député mi nag benn bokk yaakaar yi fi nii ña nas ay pexe ngir faxe ba président jomaay fay du mën a tas assemblée nationale ayib dafe moo ko wax ba pare di leen ko a régler mooy président jomaay fay jël dogal tas député benn bokk yaakaare taxawee ne duñ def débat orientation budgétaire loolu rek motif la mën naa tax président jël dogal tas assemblée ndax ñoom loolu ñu def du yoon ma ngi ko waxee ci source a Alioune Tine feelu ko ci vox populi na leen xiiro ngaay bi am assemblée nii buñ ca waxut ci ab crise la la ñu jëmee leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne attekat yu bëri fañ leen a nar a affecté toxal leen ak procureur yu bëri fañ leen a nar a jëlee seen place remplacé leen ak yeneen ne fa ñuy ñëw ñu sàcc e dénk wàllu biir réew mi Jean Baptiste Tine fa tontu maire bu Colobane xam nga circulaire bi ñu wax ne ministre de l'intérieur moo ko génnee ngir santaane toxal gi ñu toxal yenn yi nee na boobu maire bu Colobane bokkut ci woon soxalut ko maa ko waxee ci bés bi yéen a kaay la mu wax moom tribune yéen a kaay mooy Ousmane Sonko keroog li mu wax ca Colobane fa mel génn na ca wax fañ koo dégg mu ne fi mu toll nii duñ seetaan ay benn marchand ambulant di toog a jaar ci biir a doon a a kaay moom fay lukkat ma ngay audité kër gëm jiite di CDC seen xalaal jaak tappaleeg lépp lu fa mën a xam waa IGE yi ña ngi koy lañ bët wala fa liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la mën a def ci jëlee fi ñàkk liggéey surtout boo ko jaaree ci wàllu mbay artisanat ak yeneen yi ni mel enquête yéen a kaay na ko réewum Sénégal nag moom yarum ganaar fa mel daal fañ cee deltu ginnaaw ki narta seetaan RTS muy deltu ginnaaw du kenn ku ma njiit la Pape Alé Niang moo tax fa jël ay dogal soppi doxalinu RTS pasar pasaree xalalu fa nekkee woon Pape fa ko dakkal ba tax fi mu toll nii nag liggéeykat ya fa ñoo mel ni fa ñoo jëfuru de lii yéen kaay na ginnaaw liggéeykat ya waa CSE ñoom i tamit ña nga ca kaw Pape Alé Niang le quotidien kaay na li ci garaaw nag mooy démb journalu vingt heures bi RTS amul vingt heures Pape Alé Niang na leen bu leen dara métti pesum kanam borom a koy fajal boppam loolu man maa koy lijjantil sama bopp li tax journalu vingt bi amul démb vingt danaa ay matuwaay teg ci daan yi ci war baneen bi ci topp mooy dogal bii ma jël ngir alalu RTS bi jaar yoon mu dakk du ma ci deltu ginnaaw faay jël sama responsabilité liggéeykat yeeg kum neex am nga sañ-sañ dund wala nga ne lii d'accorduma ci waaye lu dul yoon moom jeex na dootu amati RTS maa ngi ñoom nag ba géej gi def walaat fañ maa xamut laa yaakaar du ma deltu ginnaaw de bés bi yéene kaay moom fa xëy di àddu ci négocier waat contrat bi ak wàllu audit yi ak gaz bi faax ma ay risque de yéene kaay bi ne risque dem ba investisseurs yi jógee bitim réew dootuñu amati confiance ci kilifay réew mi mën na ko jur de l'observateur feelu ko ci li mel 24 heures yéene maam yi boom ray gu ñaaw gañ leen rayoon ginnaaw bu ñu demee xeexal tubaab yi français yi jàppale leen au lieu tubaab yi gërëm leen def la war ca ñoom déedéet fañ la nar a yoon fàttaliku googu nag ñu koy fàttaliku ren mooy juróom-ñetteel fukkeel bi waaye coppitam fa cee nar a am de ab comité lañ war a taxawal xam na tamit ab rapport boo xam ne bés ba danañ ko jox président Diomaye si du quotidien moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'évidence yéene mooy ne coow li topp Tahirou Sarr fa xam lu politique màkk neexut ba neex waaye El Malick Ndiaye fa cee xam ndam mook équipe am bañ àndal loolu baax na li baaxut nag mooy la dal ay élèves yoo xam ne fañ doon def examen baccalauréat ca diwaanu Kaolack ndangaan yaw seetal 64 juróom benn fukk ak ñeent ci ay candidat baccalauréat fañ leen a génnee ca classe ya na leen dootu leen def yéen bokkatu leen ndax fa ngeen a andiwaalee téléphone portable ci seen biir saag yi te loolu fañ koy xaaye Dakar presse yéen kaay na yëf bu Kaolack jury 15 06 ay arabisant lañ président jury bi ci libération communiqué ministre bi ñun moom lañ jëfee kenn ca candidat yooyu ñu génnee ci bés bi yéen kaay fa wax ne ñun fa ñoo sacrifié ndax téléphone yi defuñ ko suñ poos taxaaluñ ko te booba examen bi tàmbaleegut lañ ko bàyyi ci suñu saag ya ñëw toog ci classe bi ci saag boo xam ne yow jegewut la moo tax lii ñu ñu def nii du dëgg du yoon fa ñoo tooñ waa ma ne wax dëgg yàlla man moom faa leen yërëm ndax waajal examen baccalauréat ni métier xatum lëmm nga jàng bay bëgg a dee bés bi nga dem pour toog ngir def examen ñu ne la génnal bokkoo ndax téléphone fa nga koo àndi te fañ ko xaayee ko gën yaakaar gu tas waaye fay leen a